yow laa dégg na yow yaay sama téeréer si dëkk bi di saagawaate ah soxna si. du police lañ dem. dama ne ndax yow laa dégg waxal fii li nga doon wax ci internet bi. yow laa dégg di nga wax nag. waxuma laaj ndax yow laay dégg ngay saaga ci internet bi wala du yow. nit ñëw ne la jox ma junni la saaga ba tey bu doon yow looy def. lan moo tax ngay nekk ci internet bi di saaga yow yaa moom nit ñi. moom ma kenn. saaga yi pour lan la. dégg nga Massar yow déggoo li ma wax nit la ñëw dama ma am junni saaga ma ndey. boo doon yow looy def. léegi bu ñu la joxee junni nii la saaga ma ndey nga saaga ndey. ah moi. nga teg ko fan loolu. fi ma ko war a teg. yow yaa moom nit ñi bay saaga saaga fu la neex nga koy defee nga foofu. nañ dem police waaye. damay laaj ndax saaga fu nekk nga koy defee. ma ne nañ dem police. est xam nga ne yow ci kaso bi laa lay tëj dootuñu la ti yàlla bu ma génnati. mais yow nga fiddee may wax ngay taxaw di riposte. da ngaa foog ni fu la neex nga saagaa fa man maay sëriñ Cheikh su ma waxee rek bu déwénee dootuma waxati dina nga nag ma yóbbu police yow rek lay xaar non dama lay yóbbu nañ dem no defal ndànk sax bala ñoo dem yow saaga yi ngay saaga fan nga ko teg pour entre nous deux man ak yow pour lan ngay saaga nit ñi ah lan may dóor léegi no fi lay fi lay dóor kay dinañ fa dem man je te pose la question ñoo ma ne ma saagaleel ma saagaleel. et puis da ngay wax man di yuuxu. yow foo toj dama lay laaj foo toj. fi ma toj nga bëgg a xam. waaw ni la dinaa la fa yóbbu tojaale la fa yow. ah bu ma def u saaga de. bu dama lay dépassé. parce ah. yow da ngay dépassé waate. man comme da tey laa la mos gis bu ma dépassé. non si dama lay dépassé. et sax xoolal bul wax ak man di xulleeku. ah yow nag xoolal dañ bul wax man di xulleeku. ma ne tu fais une ton présentation. quelle présentation. présentation de quoi. non comment tu t'appelles de quoi. nan nga tudd. man inconnu inconnu inconnu tu parles avec un homme de loi. mais un peu de respect quand même. tu me respectes je te respecte. mais je te respecte point final. je parle avec toi euh, comme ça je te respecte. tu me dis je te respecte comment di yuuxu di sànni loxo. ah mais booy yow sa tooñ nga ma tey torop rek. mais nan laa la tooñee. te barki da yaa yaa Rasulullah di nga xam ne homme de loi di nga xam ne maay laa leen. te yaay laa lan. barki yonante ba tey nga xam maay sëriñu sëriñ si. yow bi barki yonante yow looy def yow lan ngay def lan mooy sa métier exact. man sama métier sa yoon nekku si. daka ne rek ma yóbbu police ñu dem. mais et may wax ngay riposté. di nga xam sur internet comme mon mot chaque journée qui les réseaux sociaux De Dagalata et Saganday. là je l'ai trouvé à Anne-Marie de LP elle est là je l'ai cherché depuis euh, une semaine et puis may wax mouy riposte ah dañuy dem wala demu non dañuy dem moy waxi lan yow police téye la nga nan dañuy dem yow lol ngay ah, laaj waaw kañ non defal ndank man man comprendre ma pourquoi saga yi man lol moma ma jaaxal pourquoi lolou yow ose nga tok fi nga tok saga fi sama kanam yow ma sekka yow ba dina saga saga, yi ngay saga saga ko fi ñepp deg ko yalla dara do ko def police nga ba yob nañ tam lu tax do saga, saga. guerrier nga guerrier bu mel ni yow man mosuma koo gis. man ñeeño laa te ñeeño mosoo gis ñeeño bu rafet. moo taxit wane nga sa bopp tey de dama la doon napp. napp yow boobu na napp yow. ndekete yow guerrier nga. xam nga yow laaj nga ba soosu. ma ne ko duñ duñ ma ko waxee fii nañ dem ba police. <laughs> bu ñu demoon ba police nag si daaneel boobu nag bu ko xam foofu boo fu ma koy daaneel. yow léegi bu ñu demoon ba police nooy def. laa la la zarab. zarab la booy. lan moo tax nga fekk ba may noobu rek damay yëkkati. <laughs>